di wax ni ñi ngi sant yàlla bu baax bi nga xam ni bi may nañu tey ñu mën a teew fii ñuy inauguré ñaareelu poste haute tension ci Touba poste 225 30 kV bii ci Ndindi deuxième poste bii ñu ngi ko dugaloon ci programme bi ñu wooyee boucle 225 kV du Ferlo te mi ngi toll ci 69 milliards virgule six cent cent quarante sept millions de francs te gouvernement bu France ànd ci ak FH énergie pour may ñu mën koo togg comme googu ñoom ñaar gouvernement bu France ak FH énergie dugal ci li muy firndeel mooy diggante bi am ci diggante Sénégal gouvernement bu Sénégal ak gouvernement bu France ci yittewu liggéey ci li nga xam ni mooy ñoŋal rafetal dund condition yi nga xam ni anam yi nga xam ni moom la Sénégal yi di dunde bokk na ci ñu mën a jot ci courant mooy fàttali ne lii nga xam ni moo tax suñu jotaay tey bi mi ngi bokk ci orientation dëgg la tombee waral ay gaaf mais dafa bokk ne lii dafa bokk ci orientation yi nga xam ne bi moom monsieur le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre di chef du gouvernement mooy seen yitte mooy sénégalais bu nekk mën fépp fu mu nekk ci Sénégal jot ci courant bi tax su bësee lampe mu takk su bësee mu fay ngir doomam jàng hôpital am lumière am